internet 5 TV àllema seeni nopp ma tegtale li si yéenekaay yi dañu koy doon ak Le Quotidien seen ko gisee am na lu ko lal yéenekaay bi ne lëkkaloo bu bees moo ngi waaj a juddu ngir rek jàmmarlu ak lëkkaloo bi dox ci diggante Idi ak Macky laas teg ca ni lëkkaloo bu bees moo ngi xeej ndax Khalifa Sall jege ji na Ousmane Sonko ba tax Walf Quotidien ne ana lan la Sonko ak Khalifa di waajal Libération teg ca ni gise bi Sonko gise ak Khalifa Sall mbaa rek du jur lëkkaloo bu tàng jër Barthélémy Dias si yéenekaay bi ne Sonko ak Khalifa ñoo bokk benn bëgg-bëgg te mooy rek àndandoo jëm ca kanam l'observateur ci juróomeelu xëtam ñëw na rek ci li undu ndaje boobu di ndaje Sonko ak Khalifa ba fekk fa njiitu réew Macky Sall moom nag ca journée d'intégration africaine dafa layool waa CAMES ak li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu ko gëstu yéenekaay bi dool di ñu si xamal ni lu ñeel nag prix Macky Sall wàllu gëstu ci lu ñeel wér-gi-yaram la ko jagleel direct news dool di ñu si xibaar ni lu ñeel gëstu bi ci Afrique Macky Sall enveloppe benn milliard ci kopparu CFA la si joxe ba noppi nag mu xamle fa ni Lames daa yeyoo ndimbalu état yi nga xam ne ñoom ñoo aju si moom ndax rek bi ñu ko sosee ak léegi di ci atum day dugal loxoom bu baax a baax ci intégration africaine su di ko dëggal ndax fësal na ni gannaaw juróomi téeméeri million ci kopparu CFA ba mu joxe woon si ñaareelu bésu scientifique bu CAMES Macky Sall na rek yeneen na juróomi téeméeri million ngir waa CAMES ndax prix Macky bi ba tey moom njiitu réew mi ci Vox Populi xamle internet bi loolee moo merloo Macky Sall ndaje boobu nag bu ñu sukkandikoo ci le quotidien idi moo jël ndam li ci wàllu ko tàccu ca ba ñu jébbal Macky prix pour la recherche bi les échos dolli ci ni spectacle bu xumute dagan moo amoon ca sikaad yéenekaay bi ne idi moo doon feccal Macky Sall loolu nag jaaxal bu baax a baax waa public bi ba ñu mujjee waaru laajtew bi ñëw ci révélation yu mag a mag contre Idrissa Seck yéenekaay bi ne njiital conseil économique social benn kàddu ci réew mi ba tey rek mu xam le ni Macky Sall da koo génnee si jafe-jafe yu taratar si wàllu ko koppar bi nga xam ni moom la nekkoon ñu jàll ci covid 19 bekk laatox bi ne yéenekaay bi ne démb yokkute bu yaatoo yaatu la ñu am rek si ñi nga xam ni ñoom ñooy wër ci opp ne nga xam ni ñoom ñooy am feebar bi daa wàññeeku bu a baax démb waaye Walf Quotidien xamle na ni yokkute bi am ci feebar bi tax na rek jaaykatu masque ñoom dañoo daal sant yàlla l'observateur teg ca lu ñeel vaccin contre covid 19 ñooy liggéey ca kër docteur ñoom ñoo ñu ànduñu si ndax nee nañu nag seen xel dalul ci vaccin boobu Vox Populi di ñu xibaar ni union syndicale pour éducation de qualité yëglu nañu ndax rek xam ne nañu ni bu ñu moyuwul bi mooy nekk rek année scolaire ak universitaire bi nga xam ne moom moo gën a yées source aané ak ñaareelu ko vague bi nga xam ne moom la wax ci opp covid 19 bi école yi ñoo ngi foo ak sawara le quotidien ne école yi ñoo ngi foo ak safara le quotidien ne système éducatif bi lu toll ci rek ñetti junniy moo ngi rey boppam ca rëbës ndax rek daa door grève de la faim ñu jeexal ak l'observateur ak mbir mu doy waar bi mu xëyee yéenekaay bi nee na foofee ca kër Momar Sarr benn xale bu góor bu ay atam toll ci fukk ak juróom moo doon jéem a rek sàkku ñaari xale yu jigéen yoo xam ni kenn ka ñeenti at la am keneen ka juróom benn at dong la am ci digg àll bi foofee la ndarkee pelis yi yéenekaay yi mel na nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf